jëre ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax ñoo ngi fii bi wasaare ci émission bu mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo tey jàmmaarloo nag mbokk yi dama fay dalal ñaari xale yoo xamante ni ay ndaanaan lañ ku ci nekk ci victoire nga jógee sama gauche maa ngi nga xamante ni mooy dab daan sama droite maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Nokia waaye Nokia nag mbokk yi dama leen fàttali ni téléphone bu yàgg la xewoon na fi nag ay jamono waaye fi mu toll ni daa xew yi ndax fi mu toll ni ay iPhone moo xew ay Samsung ah ay techno yooyu daal ma xew waaye Nokia moom xewi na xanaa ma bàyyi la ñu nuyoo dab daal nuyu naa la. maa lay ziar wos. bismillaahi rahmaani rahiim auzu billaahi mina seytaani rajiim sant yàlla bu julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur. ajal mi kaw bi tuuti. di sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu waajur bu jigéen yal na ko suñu borom yërëm jéggal ko xaare ko àjjana yal na suuf tuuba oyof ci kawam ñaanal suñu waajur bu góor yal na ko suñu borom yàggal lool may ko wër ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi du nuyu jam ñaajo bi yëpp. Mm-hmm. ba ba vingt deux quartier bàyyiwuma kenn. waaw di nuyu suma grand suma xarit Adama Mohamed Baye di nuyu monsieur le maire sum papa Mamadou Moulaye Gueye ko ñaanal jàmm di nuyu sam papa El Hadj Baba Traoré nuyu sam papa El Hadj Baba ko ñaanal jàmm di nuyu jam ñaajo bi yëpp bàyyiwuma kenn waaw xam nga ñu nuyoo lool ba ci kanam quoi. Mm-hmm. Nokia nuyu naa la. bisimilah asubillahi laa ilaha illallah buur yàlla laa ilaha illallah faal jërëjëf borom Tuubaa jërëjëf si Ahmadou Bamba Rasul maa ngi nuyu ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waaju bu baax waaw di ñaanal sama wasila sëriñ Maamor Mbacke di wax laa ilaha illallah ji nu yéegati maa ngi koy wax gaay yi nga xam ne ñooy waaj magal gi ñu dem ci bisimilah rahmaan rahim ñëwaat ci alhamdulilah rabbil alamin lépp lu nu fa ñaan rek jàng ko fa xasida waaw yàlla tuur ko ci réew mi pour ñu mën a delluwaat suñu jaam ci barke Seydina Muhammad di nuyu ñi ma fekk fi si plateau bi mu Iba jam ñaajo dab daan di la nuyu Ousin waa di nuyu sa caméraman waa di toog di déglu ko son yi quoi incha allah. di leen wax ne nag combat bi dafa mel ni dafa taxaw ndax kii di dab daan ak Nokia daa mel ni promoteur yaa ngi def seen combat waaye dégg naa ci koo taxaw na dab daan dafa mel ni tey da xaw a sedd ñu ci bëri dañ naan dab daan dafa dafa doo ko xoolee doo jàpp ne mbër la lan la. waaw sant yàlla rek ku nekk ak sa style dafa am promoteur bu ma woo ne ma dab ma ne waaw ma ne ma changé sa style parce que mbër yi ñoo ngi la fi bàyyi mais xam naa ne mbër yi ma fi bàyyi nee naa la bu taxaw laa ñëw. combat bi dafa taxaw. ajal micro bi tuuti. combat bu taxaw laa ñëw sama combat man ak Nokia. ban combat moo taxaw. Nokia. promoteur moo la woon ne la sa combat ak Nokia dafa taxaw. ba avance yi ngay delloo. loolu am nga si droit ci média laay waxee. Ousseyn doon déggante man ak moom mu ne yow man ak yow lay invité. man nag moom dégg naa ci internet bu ne nga taxaw ne Nokia laa bëgg a dama fa war na teew avant mais teel a ko yàlla door dogal mais promoteur wooxaguma dama yàgg dab daan waaw foofu laa mën a yem. Nokia. nangul naa li nga wax taxaw ma si benn télé laaj la mais dafa am lu am da nga def say preuve ci làmb da nga bëgg a man dama la non da nga may déglu déet ma la déglu da a bëre ak man ay ne fii di baab naa da nga am loo def si làmb man dama dama bokk si làmb defaguma dara si làmb dafa gu ma dara si làmb laa ngay xam ni maa yow du ma la ma sa baab lay wax rek lii ngay xam nga bu ñuy wax ni da ngay yaakaar ne bi dafa taxaw te man combat bu taxaw du ma ci wax loo yaa combat bi nag bu ko promoteur doxee mooy war a bëre man ak yow noonu bëre. donc yaa waaw kon loolu féete na boor. mais man déggoo lu ma la dama ñëw pour jàkkaarloo mhm. am preuve yu mu def ci làmb dama koy wax. waaw ci làmb. ndaanaan la teel micro hmm. la bu fekkee mu neex bu bëree mu neex. Hmm. mu am lu mu def ma am lu ma def ci làmb làmb boole ñu man ak moom ñu dox sama combat ak moom pour yóbbu ko reefan ma leen bëreewu ma ak reefan lan moo tax bëreewu man reefan. Nokia reefan sa dëkk la. waaw man déggoo lu ma la man dama lay wax li am bañ ma waxee man maa leen wax ni bëreewu ma ak Nokia reefan parce que reefan sa dëkk la. fekk jiwuma la sa dëkk di fa bëreeg yow. am foofu moom boobu moom bëgg na ko teg parce que John moom waxoon day teg Fallou Ndiaye moom waxoon day teg combat bi xaw ma xaw ma précis mais benn yoon la ma ko wax rek à la fin moom mujjewul nangu. bu fekkee nag promoteur daa ñëw pour bëgg a teg sunu combat. non non te yow sama avance. nga ne bisimilah dégguma la. bu fekkee ñeme nga jël sama avance. maa ngi sa avance toog bisimilah eh maa ngi sa avance toog. nga ne <laughs> ñeme naa jël sa avance Nokia. waaw maa ngi ak sa avance toog. man si soo ko ñemee nag yow. ah ragaluma loolu combat bi ragaluma loolu. parce que man dama ñëwoon tey jii nii. pour jàkkaarloo ak yow première face à face looloo ma indi woon. face mais Nokia Nokia nañu waxante taxaw ci yow lay doon mais du ci man. <laughs> nañu waxante rek. soo bëgg waaye yow da ngaa baax soo bëggee balaa ñuy dem màggali ñu bëre combat bi man ak yow non Minassèr kii day wax rek kilim bay neex rek Ouzin Ouzin kii ndaanaanu làmb la de <laughs> mais yàlla xam ne ni ah du ma moom une minute nu ko yaa bu combat bi taxawee yàlla xam ne ni du ma bëreeg moom une minute sa waay wooyu ma man xam naa nga da ñëw xam nga da ñëw yow yaa lekkul ah yow lekk avance pour Nokia mais yow yaa ngi ci erreur la da nga nekk si erreur. non mais. Eh, man benn promoteur waxagul ak man sama ministère waxagul ak man dara. mais yow kese dama ñëw fi pour ñu. dama tourner émission rek ah. donc yaa yow kese nekkoon man bu ma doon ñëw face à face du ma ñëwee nii. waaw loolu dëgg la parce xam naa la. waaw damay ñëw tax ak ay saafara yooyu. bu sama combat taxawee man ak yow su ma ñëw face à face. man man xam naa li ngay def nag du lamb. dama lay conseiller quoi <laughs> lamb dafa am loo xamante ni bu ñëgee si kaw stade bi. waaw dañuy soxla ku xëjëm. ku xajam waaw takk ay galaaj sotte ko ay biteel. Mhm. mais nga ñëw ci lamb mel ni kuy dem soirée wala dara. loolu waxee si ko bër da ngay xëjëm. boo xajamee loolu moo wara lamb. damay set wecc jàpp la daan la. ok sama bi lu xajam bu taxaw. te bu ma la jàppee daan la. waaw ba combat bi taxaw pour xajam. ba combat bi taxaw rek liy xajam moom kër ga ma bàyyi. waaw noonu la deme man moom damay xëjëm. leer laa la wax damay xëjëm ba mu xëjëm kay. mbër maa la daax bëre. loolu du dëgg. maa la ëpp doole maa la gën a nekk xale maa la ëpp xaalis cinq fois boo ko waxee wax nga lu la neex déglu bu baax. man boo laa man ak yow man du ma ragal. maa la ëpp galaaj. galaaj bëriwul nag ay waxu xajam. galaaj bëriwul de. ah ankay moom yow nga yaakaar. non xajam maanaam da ngay takk xajam yor ay biteel. xajam bi pour lan di sote ko pour lan musal sa yaram man lu may musal du ay xajam de. ah yow de galaaj bëriwul de. booy boo bañ ko teg foofu. man eh. lu ma takk wala lu ma sote ko musal sama bopp ci bëteeg yooyu la rek. man gàllaaj mooy mais lii daan ma man maa koy liggéey. damay entraîné lu wóor ñëw wane fulaak. luy daan keneen mais man yow nga daan ma. Nokia yàlla xam ne ne ko bii billaay wallaay taalaay man ak yow suñ takkoon ngemb contact. di h ba 19h. ma mais dóor nag man bëri dóor laay bëri de ma fii na ay contact de <laughs> bëri dóor. Cheikh yow sa combat bi passé seeraan naa la. waaw. booy bi xeexul dafa ñëw di moccanteeg yow man ma si yooyu sama combat yow. waaw nee nga taxaw na promoteur bi woo na la man maa ngi déglu sama saf heure bu ñu ma wooxee ne ma pour man ak yow man moom entraînement rek la nu ma saas bu combat bi taxawee. ci kàttanu yàlla dina wute gi nga doon bëri parce que man damay xeex man forfoos boo xeex bañ xeex lu leer nag laa la wax man mais est-ce que bu la promoteur woowoon tey déggoo li ma la wax nii est di nga ko jël man entraînement la ma sas mais man démb déggoo ma ne fu may jógee sama koñ dana suba sama première face à mu ñëw fii di delloo avant yow instant yi Nokia bi nga tooga di wax nii rek loolu da koy feete kan moo tax mu avant muy jóge ko ñam ñëw damay def face à face man ak Nokia affaire yooyu face à face moom yomb na moom làmb moo la xam làmb ma xam sama waa sa waa ko ñëpp a ma xam man sorantewunu man a ma da xeex lu leen nag laa la wax barki arxuraanu karim taxaw billaay dafa am loo réere dafa am lu doy waar dafa am réerewuma dara. daa ku ma bilaay réerewuma dara ku ma yee ci ci làmb. dafa mbër bu ma yee ci làmb loolu nga jàpp booy bul ko déglu ñëwal xeex ak moom xam nga kan moo a yee ci loolu sa doomu ndey mbay guy gi moo ma yee ci loolu ba may bëreek ak moom mbay guy ba may bëree ak moom déggoolu ma la waaw d'accord mbay guy gi ba may bëree moom mhm. promoteur bi daf ma woo dama sa combat ak mbay guy gi ñu ne ma bul ko jël ma ne non làmb la bàyyil ma jël ko parce que Mbaye Gouy Gui ndaanaan la bërekat la. Mhm. tey yii nii xam nga doo fi bàyyi bërekat yi bàyyi bërekat yi dem di jël ñoo xamante ne nekk ñu ay bërekat Mbaye gi Gui bërekat la ndaanaan la kon booy bëree dangay ngay bëree kat bu la Mbaye Gouy Gui daanee wàññiwu la dara. Mhm. wax dëgg faa la ndaanaan la mu jël ma koy jël est-ce que doole. si combat tàkkusaan boobu moo ma ëpp doole moo ma gën a pare moo ma daan. man nag maa la ëpp doole maa la gën a pare sama combat yow bu taxawee ci kàttan yow dama lay daan. combat bi de. yow fi nga teg sa tànk baaxul yow da nga juum sax yaay dugg école yi bëri joon bëre faak nit. mu daan la nga di fa dugaat. kan moo fa daan. mbay guy gi daanu la. waaw loo fay wutaat. mbay guy gi daan ma dangu loo fay wutaat la la la daanoon mu ngi fa ba léegi jógu fa. ay ay combat nga waroon a dem. déggoo ma de dama lay daan jël revanche ci mbay guy gi. bañal loolu waaye. incha allah ay xel lañ tolooguñu fu ñu defee ay rawaas ak yooyu. ma yow boo yi fi mu toll eh. ku la fi jëluma revanche man moom bu combat bi taxaw dama lay daan xaw mu ñàkk a taxaw. barki Seydina Mohamed munoo ma daan dama la waatal yaw tere nañ ma ko nag ba taay maa ngi jégalu ñu ma koy tere mais yow dama ne la li ma waxoon bee paas ay sëriñu moccukatu bopp nga yor munoo ma daan. non man aw ma sëriñ de. waaw ah, na leer. mais kii sëriñ yow fi mu toll nii lamb yëpp ci sëriñ ko teg. yow benn nga. mbër xam nga del xajam moomu fi del xajam. man damay xajam mais li ma la li may. xajam wax naa la dugal ci géew bi ana gàll. déggoo li ma lay wax li may xejame wax naa la ko musal sama boobu la. mais doole tiire diir ak fit mooy daan mbër. man sax dama pour kan yi moom danaan moom nañu wàcc suñu làmb quoi sérieusement comme sa demee na nii moom rek nekk fi kon mbër bu ma war a bëreel sérieusement dañ ma wax làmb man ax moom bëgg naa ko nag parce que waxtaan wax dëgg neel dégg ma laaj rek da nga bëgg a bëreeg man toog nga si télé bu ne bàyyi ma wax ma nokku yàlla bëgg a bëreel bàyyi ma tamit ñu waxtaan ndax gars yi mën ko jël non waxtaan comme ça ñu yow da nga ñëw ne lamb ji dafa taxaw nan lan mën a waxee avance jox la avance suñu waxaguñu noo ko yaa defal ndànk man kenn woo ma joxuñu ma avance nga ne combat bi taxaw na wuyu sa waay booy wax da ngay wax loo xamante du raisonnable non loolu yow la parce que ñun ñoo bokk nekk fii xam nga danoo ñëw pour daje fii man waroon naa fi man waroon na maa bëri man ak eh, Guiro Seras waaw mais combat bu mujjewul soo dëgg la promoteur bu mu woowoon dama yow ak dab daan damay xam ne si man ak dab daan ñu ngi koy wax. dëgg la mais depuis Réfane ba léegi promoteur woo ma ne ma man ak yow. waaw mais seetaan naa ay site internet ba tey nga ne Nokia la bëgg a bëreel. Nokia bi nga bëgg a bëreel nag. bu fekkente ne Nokia bi nga bëgg a bëreel nag. dafa am loo gis si moom wala dara. loolu noonu bu combat bi taxawee dama gis yow làmb nga rek làmb rek laa gis yow làmb laa gis yow bëre kat nga boo bëree mu neex boo feccee mu neex bëre kat nga waa jeex na loolu laa gis yow gisuma si yow leneen ah, seexa fi mu toll nii xam nga bu ñu toogee fii kilim bi di upp bu la neexee ngay waat ne kilim bi yow mii la gën a jege kilim bi dama ko woon ginnaaw yow sa kanam bi la jakaar loolu <laughs> yaa ngi dégg su la neexee nga naa yow mënuma la daan mais yow loolu boo ko waxee xam nga ne da wax la neex rek mënoo ma daan mënoo ma sax yëngal waxoon na wax naa ko say morom dinaa la non pas. mais bu ñu la andiloon avance am di nga ko yóbbu. déggoo li ma la man damay entraîner kese lanu ma sas Bada John moo yor sama lépp ak Malick ak ku ci mel ni Déthié ñooñu bu ñu nee maa kii suba suba man dama avance bi ñëw ma koy jël xam nga man champion laa dama mën a bëre. doon ndaanaan barki sëñ Fallou dëgg la su fekkonte ne man damay bañ a bëri wala dara kon du ma bëgg reefan yow dëgg la am na ay yu nekk reefan yoo xam ne tey boo leen bëggoon a teg reefan dañuy bañ yow man dama leen ne bëri mooy sama métier man du ma bëree ku nekk jam ñaajo jam ñaajo sax bu ñu ma fa tegaloon combat sa koñ damay ñëw bëri kan nga fay bëri dégg nga wax ku ñu ma fa tegal baax na ah, même yow man <laughs> waaye kon day mel dama koy laa dama lay wax man fu mu mën doon damay bëree. du ma doon wax ci laaj ma la ci làmb de. parce que defoo ci làmb lu ma fi def. da nga laaj non de dama ne la kaay nag foofu noonu taxawal foofu. ma laaj defoo ci làmb lu ma fi deful defoo ci làmb lu ma deful. maa la ëpp tuur la ma ëpp lay victoire. doo génn fenn daagu ma génn daagu. nga suul ma ci làmb waay sa waay bañ a suul danoo bokk ma ne yow fan nga soxna si léegi dangaa ñëw mën a la ndax mbër nga. waa d'accord sa normal dama ne la bëri na bëri na ci sama waa ji. wuy ma yow mosoo takk ngem bu bëree grand combat Ndakaaru Ndiaye man soo Iba Mar ma duy ko ba mu fees del nga naa ma ay xanaa loolu la man ak Brise de Mer kañ la loolu xanaa Ousseyn seeraanu loolu kañ la kañ la di profitoo di profitoo di sant eh, rek eh, xamoo eh, kaay kaay fii kaay fii <laughs> ñëwal ci point boobu bul profitoo sant Ibo Ibo jam ñaar boo bëree grand combat bëree la ko kaay toog fii da nga ne dama ne yow promoteur bi ñuy wax grand combat lay xaw ma lu muy wax bu la ah. bu ko defee premier ah. combat sax baax na man ak yow non man moom nag combat yoo xam mais am na ci droit. ba ma déggee loolu ba ma déggee loolu man nangul naa ko ko. nangul naa ko d'accord ci loolu yow. naa su ko neexee. parce que am na boo bu leen neexee mu ne du leen bëre mais maa ngi moom première combat sax ma bëre ko. teel a dugg ci bëre barke Alxuraanu Karim gars yi naa dañoo teel bëre yëpp dañuy wax. première sama première combat comme Ragros ak Aliou Mané ci laa bëre. boobu de maa ngi góolu waaw mais da nga ñëmewul a dugg si bëre. man damaa as di 15 yàlla may la jégal di. 15 boobu boobu xale la doon doon fa eh, doon buuju maan boo eh, xamante ni xoolal dëkk raay ba. di profité waa raay ba ñëpp pompier waa garage garage bi fële na waa Patar Sène camion yi man si camion yi laa doon fanaan. bu bët setee ma taal sama ma jël sama tu dem. liggéey gars yi jox ma combat soo ko jóge reefan ñëw nekk. déedéet man emprunté laa woon di profité di sat waa Petersen ñëpp. garas kab yooyu taxi bagage yëpp maa di bëgg. <laughs> non affaire de senes la déggoo li mu la <laughs> ay ñoom papoli sama gars yi gang bi ñu nekkoon ba léegi ñooy ànd. gens non bàyyi nañ lépp ñoom ñëpp ku ci ne mu ngi liggéey eh, yor ay leneen ak leneen. Eh. non amaana xëy na bàyyi woo ba léegi bàyyi woo waxal rek mën na nekk de mais gees moom bàyyi naa ko bàyyi woo waay dama doon gees xam nga di jël ay ginaari jàmbur affaire yooyu bilaay bu mbapat amee terrain bay pap su ma la jàppee di nga fay ginaari jàmbur dama bëree bëree bëree foofu ba mënatuma bëree après nag ci la ma gars yi téere dugal arène combat Aliou Mané rek loolu su ma nekk rapide ñaari combat non man moom xamu ñaari combat laa bëri moom su ma ko jàppee déedéet su ma la jàppee di nga delloo bilaay walaay xaw ma ñaata victoire xaw ma ñaata victoire la am billaahi. xamoo ñaata combat nga bëri xamoo man li ci sama kanam laay xool fi mu toll nii mais. ñaata défaite xam. bariwut de est-ce que du 3 non <laughs> rek laa am man mi ngay gis nii moom lu passé passé na. dama nekkoon jeune dugg si làmb sama morom bu ma dajee yaa xam ne maa la mën. barke arxulaanu këram ñëw du ma teey du ma def dara damay rabax rabax daanu. damay mën nit ki foofu ñëw war ko jàpp daan mais léegi loolu yëpp jeex na fi dafa am ñu ne sama ginnaaw. ku ci mel ni Déthié xam nga ak Malick Mbay Mbay Mbayam Aliou Bada maa ngi koy sant bu baax waaw sama sama waaju baax jooju borom carrière bi ku mu jaayal suuf baax baaxul ak feer ñuy toog ak man di waxtaan man ne man daanaan nga danga mën a bëri am nga fit li ci des mooy lan boo ñëwatee respecter sa anniversaire ci laa commencé sama commencé papa booy jine lu ne laxasu ci ma ñëw téye sama bopp lamb ji mooy loolu ñu gàñam par avertissement mu ñëwaat ak agogo gisaguma ko ci siit siit bu mel noonu si làmb. Eh, ñoom ci làmb ji. ñetti ñetti ñetti daan laa daan nu mu daanee àgg ko. gënal affaire bi déggoo li ma la wax kii bi caxa dama ko jàpp caxa ba dama xam nga dama ñëw andi poids gars yi yaa xam ne mënuma bërilu lu yàgg dama ko bëriloo ba mu xam ne sonn na ma. maa ngi ci trois kale laa daan. mais nag ñoom ñaar dañoo moom àggagoo dañoo xaw a ndoo ko seetaan kii dara. eh maa àggagoo du du benn kii ak njoolaayam. mag mag xorom wuy ma ak ak ay galaaj yow doo takku. man xam nga lépp boo déglu ma boo bëggee sama combat man a yow taxaw man promoteur woowu ma. soo bëggee sama combat yow taxaw del am aw ma jalaabe xaw ma del am fulal sa bopp di ñëw di di saflam del ñëw di saflam jalaabe yooyu nag laay laay laay jàpp xotti ko sànni ko fale Nokia yàlla xam ne ne wuy ma man sax xanaa xamoon ne yow yow xanaa xamoon ne sama combat yow bu taxawoon billaahi walaay balaa ñëw bëri ñu xeex ñu xeex balaa ñoo bëri dinañu xeex. foofu ngay ne di jéem a tu toilette yor ab jalaabe eh, fa lay fekk. boo xeexee man boo xeexee ak man boo xeexee man avant ngay dugg ci géew ma duma ah, baax na. man damay jàpp ay téere kii ci tàng yi lay dem nga naa ma ay wax ji yëpp xam ay booy bi du takk téere fuñ jàpp man déggoo lu ma la dafa am loo xamante ni xam nga ma wax ko koo xam mu gën a pousse combat gën ko bàyyi. déggoo ma waxal rek waxal. xam nga ma tàkk benn gàllaaj sama yaram. non da bañ ko si jàpp. non pas bañ man sa ngëm bi laay jàpp. aar bi ma def bi ma def dañ ma koy pour muy defoo benn aar. foo ko fi mos def. benn aar la defut bëre moom amul lu ci mën a nekk. yow lamb lamb la yow xoola yow maag yow. man bëri naa ay meilleur boxeur man moom ay ay boxeur yoo xam ne international lañu. daf ma boxe de. xaw ma loo mën def loolu nag loo mën a def ci àdduna bokkul ak bëre man def ma box de. bëre dafa garaaw li ma def defal lu la neex. li ma def nag lépp lu ci biir. defal la neex. lu ne ngi ci biir waaye. bëre de moom benn la Sénégal ko moom. boo demee la laajteel eh. boo demee laajteel boo demee laajteel lan mooy aikido. aikido yooyu fale la am. fii bëree fi am. Ah, arbitre soufflet ko waaw roof caxabal. fili fa la dóor tànk. soo demee laajteel lu ay. te dóor la ngay kii ma ramas. moom laa lay may yàlla xam ni tànk laa lay jox man ak yow bu ñu doon bëre. tànk yi laa yow fi mu toll li ngay wax ni sax déglu ma bu la neexee nga toog loolu yëpp dara toogal li dara daax bëre boo ko jëlee ma mboot la jóg ni yow billaahi dama boo ko jëlee lii non mboot moom kenn daanatu ko mbër mboot kenn daanatu ko mbër yow kurtu maas nga déglu ma la wax mboot kenn daanatu ko mbër lu leer laa la wax yow sa faar yi fu ma la jàpp mën naa la dam billaahi baa dangay takk non bul wone ginnaaw loolu moom bul ko xalaat sax boo jàpp ci man ma daan la mbay Faye la ëppoon doole fuuf njool ci kaw koroog baar di sifle ñëpp dañu dar seen. gémmiñ ñooñu ngay wax ñëpp. toog leen xeexuñu bëriwuñu man damay xeex ak yow. kii moo fi mujjee bu yaagul bii moo fi mujjee bu yaagul bii moo fi mujjee bu yaagul bi walaay di nga gis lu metti. Mbaye Tine moo fi mujjee bu yaagul dama ko jàpp daan ko jëli bu bi kilim bi daw ngay wax ak Seydina ah, Mohamed man ak yow su ma la tegalee paa yow yaa ah. daan ah, maa la mën maa la ëpp doole dama bilaay day wax barke Serigne Saliou ki day simb rek mbër bilaay da ngay simb rek Nokia Nokia yow fii mu toll nii ngay def ni lii ma lay def ni sax da ngay am buzz kan ngay am eh, maa yoru combat waay waay Nokia billaahi wallaahi maa la mën barki sax man ak yow fi mu dafa mel ni da nappante parce que a ngi xoolante ku ci nekk ñu xool ah, mu naan ay ma ay naan promoteur woowu ma am naa droit wax loolu. Ouzin bàyyi combat naa émission lañ nekk ban promoteur woo ma jël ma direct eh. ah ci émission lañ nekk. ci émission lañ nekk barke Alxuraanu Karim promoteur wooxagul ma ne ma yàgg Iba Jam ñaajo su ma promoteur woo woon ku mu mën di doon da ngaa sensé léegi dab daan da ngaa sensé doo dab kenn promoteur bu ma woo dab naa la te dinaa la daan man sax du leen ma woo su fekkee eh. déglu ma wax la rek eh, toogu ma fi pour moom de toogu ma fi pour moom deful ci làmb lu ma deful lu ma def ci làmb xaaj bu def la pay victoire beneen mbër bu ñëw pour mu bëre ma man maa ngi ci avance toog man nga soxla yow nga ne ah. jël nga sama avance eh, waaw maa ngi ci non dama lu leer laa la non delloo delloo sa avance ah, kon kay bu ne waaw yow sa sa avance moo ma gënal ay laay waxal ku soxla sama combat kii nee na bëgg naa bëreeg man demal ci ba daje. nga eh, war a bëre. moom rek nekk ci ko laaj laaj damaa ñëw wér di ma laaj. internet man nit woon na ma ah, di sant Cheikh bu baax a ma moom ma ne Iba Jam ñaata dégg naa ko ci benn site internet mun naa dafa bëgg a bëreeg ma kan moo ko a teg kan mooy si ànd affaire yooyu non bul jéemal man xam naa si ante boo ko xamul man xam naa ko waaw yow sa yi sama nit la quoi bilaay dañu ma ko wax sax xaw ma la mooy wax ji man ko ah. yaa yow sa avance man ah kon kay jeex na promoteur léegi yow promoteur bi ñëw si yow ba nee nga maa lay wër wëruma la promoteur bi yow ah waxal promoteur bi la jox avance bi ne ba mu lay jox avance bi lu ma la wax. promoteur bi yaw toogu ma fi pour Nokia. man mbër bu ne bëgg na bëreeg man. waaw ñu bëgg bëreeg man. bari nañ dem ci bi ne ko Nokia laa bëri ñu bëgg bëreeg man ah. nañ. bu fi nekkee di sonal nit ñi parce que su ma delloo fee dama leen ne ah Nokia ñëw na fa nee na jotul avance ragal la fu ñu ko tëgg sama combat moom mu daw. ngeen xooli keneen jox ma ko. de daw kay bu ci amee si yow la parce que reefal na la jëga yow nga daw mais Dakar fii pour muy leer dégg ma man man wax naa Dakar gii nii Dakar gii nii yow promoteur yow toogal di seetaan rek seetaan maa moom mosuma eh. sax ba fay dem di bëre boo fa <laughs> demee xam waaw ah, yow àll boobu maay man fi promoteur yi nekk laa xamul taxawal combat bi ñoom Fallou Ndiaye ñoom Jamaye Gueye ah ñoom Assane Ndiaye promoteur yi Gaston Nokuya de 33 10 a ngi nii de. làmb ba pare gars yi dar seen gémmiñ. naka maa naqaree xam ban dar gémmiñ yow yow ki nga mujj bëreel bii paas yaa moom fa ngeen di ne nga koy jéem a jaay affaire de xel làmb amul ay naxaate de. daa yàgg. sa combat yàgg ki yàggul. waaye mais kii moom yow yow mii. dégg naa yàgg man kay man ci ay minute laa lay daan nga naa ma. kan ngay daan. billaahi bu ci sa combat bi taxawee. yaa Mm. yow. ndeysaan yow kurtu maas nga yow yow yi daa ma jàppee doo jàpp. Youssou Ndour école bi Balla Gaye barke arxuraan ko bi ma ko jàppee ñaar gisuñu. dama ko jàpp du ma ko daan ko barke arxuraan man dama di ndaanaan mën a bëre di parafito. di woo sama waa koñ ñëpp. di woo sama waa koñ xam man si njaan laa dëkk monsieur le maire Djib Thiaw man bu may dem di bëre ji drapeau si njaan laa yóbbu samay garam bay Thiaw Baye Fall ay ñoom. xam nga sëriñ sëriñ Yat Touba ay ñoom Omar Ba dama bëgg ñu ñëw jàppale ma waa Law bëgga ay bëgg Bamba ak ñoom Papa Dioum xam nga ay sëriñ Mbacke dama bëgg li ngay wax ni nga jàppale ma si man maay seen mbër ginnaaw yàlla si njaan maa fa di mbër am na ay booy yu ndaw yoo xam ne samay raq lañ dama leen di naanal nekk ay champion mais dama bëgg ñu ñëw jàppale ma barki Serigne Saliou Sall maa koy fayal sama bopp saal de musculation xam nga li ma la bu ma amee combat regroupement bi yëpp maa koy defal sama bopp yaa ngi dégg kaar yi may yóbbu stade yëpp maa koy sama bopp léegi nag waaw ku gën a waaw dama bëgg waa Sinjaan sama koñ ay ñoom Asiat Asiat ngeen ñëw jàpp si ay ñoom Laman ceew xam ay ñoom kii bak bakka aw ma seen fey ñoom ñëpp dama bëgg ñu ñëw jàpp si su ma amee combat Ibou jon góoru Italie moom awam fayam am naa ay samay tutang yoo xam ne ñu ngi sama ginnaaw saa mu amee combat dañuy jël seen i 1000 francs di ma jox ak seen i 2000 Murit Mbay asalem xam nga ak Mbay Mbay Fudaay aw ma fayam di sant Elimane Cuuj bu baax baax góoru itaali Serigne Thiaw Touba ñëw ñu chaque jour mu amee combat yi yëkkati seeni i 1000 francs di ma jox ñi nga xamante ñooy ay mag ci dëkk ba nag reefan nekk autorité bi ku ci mel ni monsieur le maire Djib Thiaw ñoo bokk benn koñ nal may jàppale su ma amee combat pour ma mën a dem parce que mën champion laa dama mën a bëre mën a xeex am naa fi lépp a ngi fi jàppale bi rek moo des barke arxuraanu karim ma andil leen roi des arènes Pay Sindiane wasalaam. waa ziar waaw di waxaat kon. non tàggoo gudde man maa doon jëlale sama benn message rek. <laughs> Nokia Nokia Nokia Nokia <laughs> Nokia eh. non tàggoo wuñ man ak yow maa yow mënu guñ tàggoo xam nga lan mooy waral maa yow duñ tàggoo. Hmm. mooy liñ la buux nii nga lekk ko man damaa rus. da may ma ñëw di ko wax kon li wax sànq rek muy jibi caw moom muy wax muy seen meeru dëkk di ko wax ne xam pour mu jàppalee Nokia parce que xam ñun bëri yëpp am soxla nañ jàppale di ko ñaanal jàmm xam di ko ñaanal sama bopp maintenant xam nga di sant samay autorité yëpp wax dëgg fa yàlla moom lu mu lim nii ne mooy togg ay añu regroupement am man togguma samay añu regroupement man luyeewu ma sama bopp ay kaar samay autorité yi dëkk jam ñaajo ñoom ñooy luyeel kaar yi ak sama boy ñoom ñoo koy luyee man lu ma sant mooy lan entraîner tëdd nelaw moo tax mbër bu ma fi jàpp am nga problème dama laa ëpp jàppale mbër waaw ëpp ma jàppale déglu ma rek ba ngay wax nag ngir yàlla parce boo ne dama la ëpp ma la waaw non man boo ma ëppee jàppale itam barke alxuraan bu suñu combat taxawee ma la yow déglu ma rek xam waxal maa la ëpp jàppale waaw boo ma ëppee jàppale baax que yow regroupement yaa koy toggal sa bopp man toggalu ma sam bopp regroupement lu ma sam bopp mais yaay dugg si géew bi ñoom duñ ñëw de waa ah. ñoo chaque jour gars yi sa première combat yi nga doon def mbooloo nga doon andi léegi da nga daanu ba son gars yi jàppaleetul la demal nga toog ñan la kan moom Iba Jam ñaaju bu muy dooru ñëw estat da doon mbooloo gars di ko jàppale laa la wax eh, tey la waalo gën a aay kenn waay kii la laa mën a andi andi dara kenn jàppaleetu ma bu combat bi taxaw nga xool kenn jàppaleetuma man ay bool bool ñoo ne sama ginnaaw bu ñu ma jàppale fu nekk yaa am eh, eh, combat eh, ñoom ñëpp ma nekk bawal bawal mbooloo laay nekk bawal bawal waxal fee waxu bawal bawal teg ko bawal bawal laa kon maa ngi Tuubaa Mbàkke toog di wàcc màggal gi ma war a màggal yi kon bawal bawal bawal bawal laa la gën a nekk bawal bawal yow man capitalu bawal laa dëkk ndeysaan ñëpp nag maa leen di sant baax baax game ndeysaan di sant waa Refane ñëpp parce que boo nee parce que bu nee moom moo jàppale ñi lay jàppale maanaam jàppale damay ñaan yàlla ñu gën la yokk pour gën la jàppale ñi lay jàpp xam yow ba ñu lay jàppale xoolal yow li nga yow defaloo sa bopp dara lépp dañ la koy defal déglu ma rek lépp dañ la koy defal ba pare mënoo nekk champion grand Wally Faye moo ubbil saal jox ma may entraîné fayalu sama bopp saal dañ ma ubbil saal sant ñu ma lu dul entraînement di sant Vieux saw barki Demba Ndiaye. feeñul si yow de. dafa génne dafa génne xaalis bu weex tàll. lu mat cinq mois ne ma dugalal Sall El Hadj Baba Traoré keneen ak keneen ñu baree bari Adama mbaay Moussa la maire dama la sama waa ji yàlla xam ni nii Baye Fall ñi lay jàppale eh, eh, eh, eh ñi lay jàppale nan la ko bàyyi lu tax depuis kañ ñu ngi lay jàppale mënoo réussir waaw yow depuis kañ ñu ngi man kenn jàppale wu ma foo toll ci làmb ci làmb barke arxuraan yaa ma njëkk ci làmb wu ma si làmb maa la jiitu si eh. làmb mais lu ma dem sama sama fulaa sama moo ko ci làmb waa jëlal lépp li ma am ci làmb li ma làmb fay làmb fayu la ko te yaa ma jiit ci làmb lu leer laa la wax lan la la lam fay yow lan la la lam fay man li ma yi nga xam ne ñu ñëw di jéem ak kii ak yi <laughs> politiciens yi ñoom ñoo réew mi bañ bañ nangu. ay eh, sama waa ji Ousseyn tey la demee Ousseyn daa toog di profito waaw waxee ba pare nga noppi ma ma noppi de xanaa ma pare fekk li may wax dafa am solo Ousseyn déglu ma tuuti rek li may wax dafa am solo sama waa ji yow caméraman bi war na maa xam sa tur sant la bu baax ndax ah, bi ma ñëwee ba léegi aada yaa ngi may grillé te waaw noonu la quoi yow yaay chiffre no ko yaa ne nga ma ñëwee sax di yëngal affaire yooyu man te de jeune boo xamante nii man maa dëkk Paysi Ndiane dëkk Réfane tund bool ba mu daj amul ku ma fa gën a nekk champion barke Alxuraanu Karim mais amul combat bu ma a nit yëkkati cent franc jox ko lu ma am man ak samay nit ñoo koy ñoo koy ñoo koy rente sama ay booyu ndaw barki arxuraanu karim samay raq Ablaay Jib Saar aw ma fayam dëcce mais à part ça amul kenn ku may jàppale comme li ma wax léegi maay defal sama maay fayal sama bopp salle de musculation fu ma war a dem fu ne maa fay demal sama bopp te ñi nga xamante ñoo nekk si njaan donc laa a wax ku ci mel ni Jib Thiaw xam nga ñu ñëw jàppale ma ay Serigne Yat Touba ay ñoom Serigne Mbacke xam nga góoru Italie ak papaam yeneen gars yi ñoom Adama Kouy bàyyiwuma kenn si njaan gépp ñu ne foofu ay ñoom Laman Thiaw séeri sagar ñoom ñëpp maa leen di wax ne leen mu amee combat ngeen dajale seen i affaire xam nga parce que nit amul lu dul goo xam man Sindiane laa dëkk coom Daaru Salaam laay représenté dëkkuma feneen Sindiane laa dëgg wax foofu ñoom Asiat xam nga sama nijaay daaw la di leen wax mu amee combat ñëw jàppale ma barke arxuraanu këram champion laa dara manqué wul si ma lu dul jàppale gars yi jàppale ma ma ñëw andiwaale saar bi pay Sindiane wasalaam Ousseyn yow di la sant bu baax a baax parce que xam nga journaliste yi moom ay seytaan lañu mais yow doob seytaane journaliste yi ñëw woo ay nit di leen jéem a jaxase yéen ñii da nga naa garaaw de mais kii moom sama doom de la Baay Faal la waa di la ñaanal sa site internet bi mu dem ba nekk ay télé yu bëree bëri ci barki seen nawet Iba Jam ñaajo ñi lay jàppale yàlla na la gën a jàppale mais loolu noonu ma ko amoon ba léegi maa ngi nekk roi des arènes barki Sëñ Fallou li nga am nii su ma ko amoon ba léegi maa ngi roi des arènes barki Sëñ Fallou bilaay bul ma catu ñaan moom yokk merci beaucoup waaw siyaar nañ ñëpp du nuyu waa wasaare xam nga di leen jox seen wàccuwaay waaye nga di kontaan ci lii bu baax. seen micro bu du nuyu euh, armée bu ngéwal bi ma àndal di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam parce que xam loolu laa waroon njëkkee sax mais xam nga euh, xel mooy fàtt quoi. tegal sa tànk bi si nga teg. lii moo tax nga fàtte ko tànk. waxal sa wax rek. xam di ko ñaanal ndam xam nga yàlla na ko suñu boroom defar di woo jam ñaajo yëpp nag si combat am di woo sam papa euh, monsieur le maire Mamadou Moulaye Gueye di ko wax armée doomam la sëtam la na jàpp ci combat am le 31 octobre la incha allah di woo Vieux Sow Adama Mouhamed Mbaye El Hadj Baba xam nga ba si El Hadj Baba Mal ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn. di woo jam ñaajo bi yëpp 1 ba 22 ñëw leen jàppale armée bu Ngéweul seen doom la seen rakk la seen xarit la xam nga combat am xam taxaw na depuis ñaari at booy xool xam nga bëreewul xam mu nekk lu métti ci moom di leen wax xam ngeen ñëw teg ko loxo mu mën a daan waaj man nag incha allahu rabbi Adama Mbaye Moussa la maire sama maire euh, Fandiaye Niass maire Fandiaye Niass El Hadj Baba Mal euh, ah maa ngi toog ci avance bi dama ñëwoon pour def face à mbër mi nee na moom promoteur jox ko avance mais man dab pare naa muy moom muy keneen jàpp leen ni dab moo ngi si préparation combat soit Nokia soit keneen. dab pare na di sant ñëpp di gërëm di sant nag kenn suma soxna muy borom ndënd yi ak tamay di ko ñaanal jàmm xam nga gudd fan wër gi yaram. jël ma yow may toppatoo waaw man itam di profité bu baax di jéeglu déet pare nga kat wala pare go. <laughs> noppi sa soxna nga fàtte. pare go ba xalaat waaw waaw. sama soxna sa noppi. <laughs> pas sama soxna sama soxna muy dëkk ba di profité di ah, sant waa seen plastique. seen plastique ñëpp maa leen di sant. waxul di profité xam nga di profité di wax mbër yi ku ci nekk na am si lu muy jàpp di liggéey man dama jóge sama liggéey nii ñëw 11h laay wàcc. dem salle de musculation doo door a dem ñibbi tey entraîné wu ma sax dama préparé ma jógee fi dem entraîné door a dem ñibbi mais tey émission moo taxoon di sant waa seen plastique yëpp sama patron Tall maa sant bu baax a baax di ko wax bu ma amee comment nga jàpp si bu baax ñoom Daouda Décé bàyyuma kenn ñi ma bokkal machine xam nga ñoom aboo ak Souley ak Omar Ndaw di sant waa seen plastique ñëpp di leen wax ne leen noo ko yaa muy fi muy préparé kii nee na jot na avance pour man ak moom promoteur bi bu ma wooxee rek incha allahu rabi yow yaa na jot nga avance pour man ak yow. Ah, ah, waaw mais toogu ma fi na non man moom bu promoteur man moom bu promoteur bi ñëwee moom. toogu yi ngay dégg bu ma demee sama koñ dinaa ne sama combat yow taxaw na comme yow nee nga promoteur bi daf la jox avance ne man a yow ak Nokia. Eh, su ma demee kay annoncé loolu maa ngi dara dëgg tey. di sant bi lu mën da la dina koy waaj a émigré. yàggu ma nekk foofu yàggu nekk foofu mais xam nga. garas kalandoo ñoom foofu laay fréquenté fi laay defee yëpp sama waa gàlle amet aw a fayam borom iphone yi iphone bi nag na gaaw ñëw amet dama war am iphone nokia laa tudd nag di sant waa nokia bu baax a baax waaw ñu ngi may jàppale sama combat ma am yenn saa premier combat bi ñu ngi ñëw jàpp mais dama ñaan yàlla ñu gën a ñëw non Nokia bi kay moo gën a dëgër ay bu ma la tàncee bu combat bi taxawee bu combat taxawee bu ma la tàncee nga xam bul fi pause di sant mbay bu baax a baax eh, eh, di sant euh, sama benn grand boo xam ne yàgguñu xamante dimbal ma rek nga jël ko mbay mbay ka ku mu jaayul suuf baaxul suuf ak feer lay jaay maa ngi koy sant bu baax muy mbay ka góoru Italie gars yëpp maa ngi di sant man daal en tout cas foog ma xaar lamb ji mu gën a leer parce que kii waxu fi dara lu leer. man moom li ma la wax leer na nañ. Ibo comme ça ma génnee man dinaa léegi nan déglante li ma la wax dafa leer. promoteur wooxagut ma ne ma ak combat mais bu ma ñibbee. ba balaa ñu maa woo man maay woo ba da jon. waaw Nokia déglu ma la jox avance bi. xanaa mënoo ko. waxuma mais Nokia yow déglu ma fii. waaye kon li ngay wax yow yaa bëgg a bëreeg man rek. yow télé bu ne eh, taxaw nga fu bëgg a bëre ak man sax mun moo sax poser question ndax ñoom ñaar ñi lay demee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje beneen yoon nu ko yaa kontaan naa ci yow. waaw sëñ Fallou kontaan naa ci yow. di sant jigéen bu ñaawul bi di ko ñaanal. jàmm kii man la faral. man la faral <laughs> laaj ko la ñaanal. <laughs> macha allah yow kii daa ñëw ne ndax. di lay jox dig daje di leen jox dig daje waali sama copain. tu es mon ami tu es mon bu combat bi taxawee yal naa la daan bu jëkk laa jóg comme nii daan la nga toog ma jóg jal dem bay la fi wasalaam. déedéet Waly Seck de Waly xam nga boo daana nit ki yaa koy jëkk a jóg. combat bi bu taxawee dama lay daan jëkk la jóg dem ñibbi bàyyi la fa. sa gars yi ñoo ñëw yëkkati la ci kattanu yàlla wasalaam.